Bienvenue sur Salam Vision. hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'du rahmatullahi taala wa barakatuh ginnaaw bu ñu sant yàlla ci mbaax def lu ko neex te dal lu ci fekk ñaan yàlla borom subhanahu wa taala ginnaaw bu ko sante pare mu dellu ñu wér doon ñu guddi fan déglu ñu weeru tëdd bi ñu ne di suñu Ramadan lépp lu ci jaamu yàlla nangu na ko xasana liman kaana yarju llaaha wal yawmal aaxir ñi nga xam ne yaakaar nañu yowmal xiyaam ñi nga xam Muhammad nee na yàlla nee Muhammad nii moom laa yoroon kon tabaarakallaahu ñu ngi leen mukk ñu yàlla may lamu ak xel ak wér ak kattan bay julli ci moom yàlla yàlla gën a dimbali ñu julli ci moom di nuyu ziyaara xalifa général xaatallaw mbokk mu ko ay jóg nasara yàlla doon guddal fanam yàlla doon ko sàmm loolu la ñuy ñëw tabarakallahu sëñ Muntaxa xalifa général des mourides moom it yàlla yàlla doon ko dëgëral yàlla yàlla doon ko sàmm yàlla yàlla doon ko wot bi jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñuy ñëw tabarakallahu dem na Jaasa nuyu xalifa général des Xaadiriya kuntu kuntu Cheikh Bekay Bekay kuntu di ko ziyaara di ko ñaanal moom yàlla yàlla doon ko dëgëral jógee sama sëriñ boobu bay bëggee kon tabarakallahu ziyaara ko ñaanal ko yan yàlla ko taxaw dem ba tere ba tabarakallahu nuyu fa xale ba dem ba ndaw na nuyu fa xale ba dem ba bàyyi nuyu fa xale ba dem ba yow tabarakallahu bàyyiwuñu fenn nuyu ñëpp ziyaara ñëpp ñaanal yàlla yan yàlla gën leen dëgëral yan yàlla gën leen sàmm nuyu président de la République du Sénégal son excellence Macky Sall ziyaara ko mu yan yàlla doon ko taxaw ak mboolem ñu ne ci gouvernement bi ak ñi nga xam ne tabaraka Allah ñu koy xëcc te yàlla jox ko beneen bopp tabaraka Allah kenn ku ne yàlla boo xam ne gën ci yow di gën ci yow yéen a yàlla defal lool nit lépp li ngay xëcc na doon mu gën ci yow tabaraka Allah kon yéen a yàlla barkeel yéen a yàlla def ci jàmm ci réew mi yéen a yàlla doon di jàmm ci réew mi nga jàmm ci lépp xam booy xëccu dara rek boobu da nga am jàmm kon li am ci jàmm doy yàlla ñuy gën a yokk jàmm jàmm nag nañ koy wax waaye di ko jëfee nag waaw du xoolaat ndax communication am nañ soxla lool waaw am na wax yoo xam ne day taaliw nit nag am na loo xam ne boo ko waxee mu taaliw bu naree taaliw nga bañ ko wax moo gën kon tabaarkalla yàlla ci réew mi jàmm weeru teel bi ñu nekk lépp lu ci jàmm yàlla yàlla na moom ko di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu nekk ci fukki yu mujj yi tabaarkalla di fukki yooyu ko ñu nekk rek ci fukki yu mujj yooyu di moom la ci la leer xamal nag waaye borom xam-xam yu bari ñaar fukki fan ñaar fan juróom-benn jëm guddi ñaar fan juróom-ñaar mu mel ni kon li war a sababu laylatul xadar ah, wax nañu indi ñetti wax waaw muy laylatul xadar xam ni dañu wax ne xayrun min alfi shahrin innaa anzalnaahu fii laylatul xadar wa maa adraaka maa laylatul xadari laylatul xadari xayrun min alfi shahrin ñu ni lan moo ko waral ñu ni Seydina Muhammad moo toog saxaaba yi jooy jooy jooy métti métti saxaaba yi laaj ko yaa rasulallah looy jooy mu ne su ma joomee kan mooy jotal si ñoom ñëw samay xel ويسر فيها ويسرك بما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون bi bi nga yàlla bindee malaaka yi jógee ci malaaka yi bind doomu aadama yi do malaaka yi dañu yàlla na bindee ñoo xam day ne ci kaw suuf di tuuru deret di naan sàngal di dóorante ku sama dóor duma te ñu ñoom lay jaamu yàlla yàlla ne inni a'lamu ma la ta'lamun ci la yàlla jëlee benn guddi googu nag guddi googu nag su ko mu wàccee malaaka dina xool na li nga doon wax ak li nga gis kon li nga doon wax ak li ni du benn ñu ni ko borom bi inna anzalnahu fi laylatul qadri wa ma adraka ma laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahr tanazzalul malaa'ikatu ñu ni boobu yaa ngi koy wàccee malaaka yi ndax li malaaka yi waxoon yàlla ca kaw ñu ko ba xam ne da ma wàccee ngeen xool li ngeen waxoon ak li am ndax doy na su fekkee malaaka yi wàcc bu ñu wàccee nag gis ñu fees si jàkk yi ñu yor kaamil alxuraan yi nag ñu yor xasida yi ñu yor xasaay yi ñu di def ay sifar ñu def ay salaatu ala nabi ñu def ay laa ilaha illallah ñu di toog ay nekk ñu di jàng ay kaamil su malaaka yi wàccee nag kontaan ci ñun te bu malaaka yi kontaanee yàlla kontaan te bu yàlla kontaanee ñun ñëpp suñu yàq xaram xaram la sawara ñu ni loolu moo waral guddi la bu xadar bi am ñu ni déedéet am na benn waay bu ñuy wax Shamboun Razi ku mënoon jaamu yàlla ci jamono Bani Israaïl la dundoon lu junni at waaw junni at yëpp da daan xeex waaw jàpp lii fii di gi mu fanaan ak wàllu affaire waaw junni at alfa waaye bi Seydina Muhammad toog ak saxaaba yi nekk li leen ko yaa am benn waay bu ñuy wax Shamboun Razi waa ji mënul jaamu yàlla ngir bani Israël la nekk ngir bani Israël la bokkoon waaw danaa def bi mu dem di xare ci yoonu yàlla bu njëkk mu koy taxaw ay naaf waaye li nga gars yi jaaree fu ne mënuñu ko rek dañuy jaar ci jabar bi ñu ko duñ bëgg daal nga rey ñu sa jëkkër bi boo ñu ko reyee daan la jox cinq cent millions wala cinq cent millions or nga ni jamaa nga ni lépp nga ni boo ñu ko reyee ñu jox la bu leen kii mënu ma ko rey fan laay jaar ba rey ko ñu jox ko chaîne. ñu jox ko buum ni ko bu tëddee dina la rek yeew ko soo mu dëgër ngoo boo ñu woowee ñu ngi laaj ko rek bu tëddee dina la jabar ñu jël buum yeew ñaari loxo yi yeew ñaari tànk yi waaw yeew yeew ñaari mu yeewoo mu xool jabar ji ne kan moo ma def lii jabar ji ne ko maa mu ne ko sa jàmbaar mu féex ko rek buum yi dàq dama ñëwaat ci ci gars yi ne waxoon naa leen buum bi ngeen ko joxoon ñu yeewal naa bu mu yeewoo dafa féex ko rek buum yi dàq ñu ko ko bu tëddee nelaw yeewee ko chaîne bi bu tëddaat di nelaw ko yeew ñaari loxo yi yeew ñaari tànk waaw yeew ñaari loxo yi yeew ñaari bu mu yeewoo mu ni jabar ji kan moom a mu ni ko maanaam ko bu ko defee rek moom mu ne maa bëgg a bu ma bëgg xam ndax su ma la yeewee chaîne bi di ko dagg wala ko dagg mu fekkatu chaîne yi daal mu ne jaww ji xanaa xamal ne man àdduna luy dox fii ci kaw suuf mun maa yeew mu ne lan moo la mën a yeew mu ne nga dagg sama catu karaw gii rek sama catu karaw gii rek nga mën a dagg ci man yeewee ma du ma mën a tekkee ko ndax moom karaw dafa guddoon ba ci suuf waaw yaa defoon na karaw dafa guddoon ba ci suuf li xale jigéen ñi bëgg dañu karaw gudd la dañu koy seen karaw yi pour mu gudd waaw am ñoo xam dañuy wuti yeneen yeneen karaw jaamu tekk seen bopp ñu naan cheveux naturel waaw lépp bëgg lépp bëgg rek karaw bu gudd yaakaar naa ko ci amoon karaw kon lépp bëgg karaw bu gudd na ñoo ne bu ñu bu ñu bu ñu cheveux borom wala nga ne est-ce que wala bu ñu tuddee seen bopp rek nga gën a xam nga ne kon cheveux bi xaw ma euh, li di gars yi naan dagaan nga xaraam waaye jekk na ndax ku ko ci dindi doo xam ne muy nuru waaw ah, bari na ñoo xam ne bu ñu rombee ko seen cheveux fii la nga ne kii kay du moom waaye bu dindee bopp bi danaa xanaa kii keneen la xanaa wala déet waaw ah, xam ni kon moom nag moom nag amul cheveux mais nag karawam cheveux sax cheveux la sax waaye newul cheveux yi xam ne gars yi ko kalee naan cheveux naturel dafa wàcc ba ci suuf karawam waaw dama ji bàyyi mu nelaw dama ji dagg ci juróom-ñetti càcc waaw ah, juróom-ñetti càcc jël ñaari yéewee ko ñaari loxo jël ñeenti yéewee ko ñaari tànk yi soo ko dem xaalis nelaw ba yeewu bi mu yeewoo mu ne ji kan ma takk jaww ji moo ko mën a ko tax nga takk mu ne ko la yeewee sa kanam takk ma doon xamam da nga wëdd fiqul mu fiqul fiqul daggul mu fiqul fiqul daggul jaww ji ah lii laa bëgg dama mooy gars yi pour ne la yéefee nu mu bonee yéefee nu mu ñàkk yërmande yahud yàlla bindul lu gën a mën yahud càmmoñ bi luqi ñaari bëri dagg loxo fu mu taxaw mu fu mu fu ko yeewee ni nu mu kawee mu diis mu ñaan yàlla foofu ñu ko yàlla alagal ni nit ñëpp bu kenn la ci rey fi taxu affaire bi yëpp moom ñëpp nekkul ñëpp dee bi ko Seydina Muhammad nettalee saxaaba yi saxaaba ne ko yaa rasulallah li wuñu dundee wu dund ba tu téeméer kon nan la ñu mën a amee yiw bu tey noonu ku dundul dina am noo mën a noo noo mën a jëfee jëfee jëfee dina am ñun bu ñu ko jëfee bu gudd fa ñu xel seen nawaay bi cent ans soixante trois ans ci yokk mën a fis la cent ans bu ñu wees xel seen nawaay toll bi sax nit dama loolu bu ngir bëri sara ak waa aada ñu teyal ak waa karaane da nga naan déedéet boo ko misaalee nii dafay mel ni ñun ak wéy ak waa ngir ban Israël bi ñu ko nekkalee saxaaba yi saxaaba yi jaaxal nañu ne yaa Rasulallah lii boobu danañ ko mën a yàlla wàccee alquran ñu ne daa leen ko remplacé benn guddi xayrun min alfi shahr guddi boo xam ne mooy gën junni weer ñu ne lii moo waral sababu leen yàlla inna nit ñi yàlla anzalnaa wàcce nañ alquran fii laylatul qadr ci guddi dogal bii guddi bi nga xam ne yàlla war a dogal lépp kenn ku nekk fi nga war a am li nga war a ëllëg kenn ku nekk nga war a jël ëllëg kenn ku nga war a xam ëllëg kenn ku nga war a jokkalante ëllëg kenn ku nga war a bàyyante ëllëg ñi war a faatu war a dem Europe war a dem Makka war a dem Medina war a dem Makka yëpp ñu guddi ko yàlla programme mu ne wamaa mbir mu màgg adraak dana la xamal maa laylatul qadr lan mooy guddi dogal nga ñu ne laylatul qadr guddi dogal nga xayrun moo gën min alfi shahr ci junni weer lan moo tax ñenn ñi jàpp ci fukki fan ak juróom ñaar fan ak juróom benn jëm ñaar fan ak juróom ñaar ñu ne parce que ñett yoon la ko yàlla wax alquran dafa ne inna anzalnaahu fii laylatul qadr wa maa adraaka maa laylatul qadr laylatul qadr soo déchiffré laylatul qadr la lay jox ñu ni trois fois neuf vingt sept ñu jàpp ko ci vingt septième jour bu di vingt sept waaw mu ne dana wàcc al malaayikatu malaayika yi war ruuhu am nañu ko ànd am nañu am ñoo xam ne beneen malaaka la ko firee wul jibril waaw waaw war ak jibril mu ne fii haa nekk ci guddi googu nag bi izni rabbihim seen ndigalu borom min kulli amri ci bépp mbir salaamun bi yéen jàmm dina ko ñaanal xataa man la ay fay ko fajal fay guddi googu nag tabaraka allahu ñu ni borom subhanahu wa taala dana ci dégg ñëpp mu ngas nant ñi waaw ah, lu guddi gi foor foor foor di wér ci junni weer lu muy foor foor foor foor yàlla du ci dégg ñett ni kan ak kan ñu mut bi ñu xam ne kii naan sàngara yàlla ko jégal bu dee mut mi ñu xam ne naan ko sàngara yàlla la jégal bu dee ko xam waaw xuquq waalidayni ak kuy mar loo ñaari way juróom kooku guddi gi lu muy foof foof foof amu ci waaw waaw du guddi gi rii rii rii rii rii moom bokku ci ak ak ba am ñetti lan la nit di wooree sax wóoral ko ba mu doon jot nee na da ngay xuloo lu dul weeru koor sax waroo kaa xuloo rawatina ne weeru tekk bi yàlla ne ñett ñi nag keneen du leen jéggal bu leen du xalaat kon ku ci doon naan sàngara nga fexe ko bàyyi te tuub yàlla jéggal la ku ci doon barloo sa ñaari wayu nga fexe nga fexe sa ñaari wayu kontaan fexe bégloo bégal sa ñaari wayu waaye sa wayu ma la waxee nga joxoon ko ba bëggoo xale bu ndaw wax la nga raamal ko foo ko teg ci raamal ko xale bu ndaw mu ne xëpp nga ci show te bu sa waajur waxee na nar ko lekk fi nga taxaw yaakaar naa ne sama sa bopp rek tàkk-tàkk boobu ngay nekk rek waaw tàkk-tàkk boobu boo xasee tàkk bay ñu tàkk-tàkk boobu bu xasee ba fay jeex yàlla ci yàlla sax xam tabaraka allah ñu cër la woon ci waxtu bi mag na di ñaan yàlla subhanahu wa taala ñu leen di julli ci fi yàlla bay wax ba benn émission bi ñëw ñu kon ñu ko wax nga li nga xam ne moom moo nekk ci weeru tedd bi waaye rawatina ci guddi gu tedd gi nga xam ne moom lay dëgmal di ziare ñëpp di baal àq ñëpp di jiital ci ñoom tabarakallahu bàyyi na rek mu ci nekk ba Ndiassane Sëriñ Diagne Bousso nekk ba Mbacke di doon ci waxaanam rek mosu ne ziar naa la bàyyi gaas nekk bi daal Aja ziar naa la baax wax Cheikh gaas yaay Pape Cheikh ñu ngi lay ziar bu baax di la ñaan yàlla yàlla doon taxawu tabaraka wa taala di leen ziar di leen ñaan yàlla yàlla doon taxaw la ay ma baax sama bàyyi di papa ma kuy ziar naa ci yoon tëdd bi ñaan la yàlla yàlla doon dëgëral waaye tabaraka wa taala mu jaay fi sabilillahi du ma fàtte waa moom la si ne ma mooy sax du ma fàtte waa sopp da baax du ma fàtte waa jaaxal ne loolu tabaraka wa taala du ma fàtte tabaraka wa taala solo si yi tabaraka wa taala waaye du ma